la commune de Rufisque Nord moo nga xamante ni ñooy jàngee ñu ci bëri ci école publique yi ñu tànn si ay famille yoo xamante ne nii mën nañ ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu décidé tey ji dimbali leen parce que ku nekk xam na ni jamono dafa metti te ku ci nekk ku am benn élève ñaari élève ba ñetti élève war a jënd structure wala joxe inscription war jënd yeneen ak yeneen dafay metti si suñu initiative ma am xalaat bi ma ne damay jàppale parents d'élèves bi ci fourniture mu nekk ay kit yoo xamante ni c'est des kits complets am na livre am na ay cahier am na matériel géométrique am na ay bic lépp lu élève di soxla ci saagam rek presque am na ko ci ma dimbalee ko famille parce que ku nekk xam na ni ah. jamono dafa metti ren nag mooy suñu première édition officielle euh, ñu tàmbalee ko ak 250 euh, ñu ngi fiy jox euh, fourniture toll nañ si deux cent cinquante élèves yoo xamante ni ni dañoo bàyyeekoo ci koñ yi ci commune bi ñu jàppale leen ko jàpp si seen jàng ñu mën a am ay résultats baax ko defee seen parents yi dugg ci a yooyu si biir ñu mën leen a dimbali. nga gis ni ci ci table bi eh, bari na xaalis bu bari lañ ci def. ñu bëgg élèves yi buñ leen ko joxee aussi ñu euh, utiliser ko ni ko war a utiliser maanaam ñoom jàng rek lañ leen sant parce que fi mu ne nii dama bëggoon avant école di tijji ma jox leen ko au départ nga xamante ni du jarati yenn parents yi di sonn ci yenn yi parce que yenn yi am nañ ko déjà bu ko defee ñoom jàng rek lañ leen sant ñu góorgóorlu bu baax mën a am ay résultat yu baax bu ko defee seen parents yi kontaan si ñoom ñun aussi ñun ñi nga xamante ni chaque année dañuy def geste bii nii ñu mën a kontaan si ñoom aussi. parents yi aussi tamit ñu mel na ni parents yi dañ ci war parent bu ci nekk am nga wareefu saytu sa doom buy parce que bu amee yenn résultats yu ëllëg maanaam bu tekkee ëllëg yow yow lay njariñ kon nag ñoom aussi war nañ di veiller ci seen éducation doom parce que éducation du école ba kese boo wàccee war nga di suivre xale bi di xool ci kër gi muy def ay exercice am di def ay devoir am ba bu demee école tey jii lépp dafa yóbbu aussi ci maîtresse bi parce que buñ jël euh, éducation rek bàyyee ko maîtresse yi kër ga aussi dañ see am cër boo xamante ne cër bu mag a mag la parce que foofu pratiquement li ñuy passé ci journée bi école lu ko raw moom la ñuy def xale moom nu mu nekkee ci kër def ci kër ga rek bu demee école loolu lay wane bu ko defee di ñaaxaat parents yi bu baax a baax ñu dugal seen loxo ci éducation xale yi bu ko defee bu ñu demee école day yomb ci maîtresse yi parce que nekk xam na ne yor xale dafa metti